tey mooy juróom benneelu guddi gi sixième guddi bu sëyre yi mu ngi ciy jàngale nag maanaam ñu ci tàgg mu ngi saar bu rëy bi nga xam ne moo ñëw ci yonent bi te mooy alquran alquran mooy mu ngi saar bi gën a kawee ci mu ngi saar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu sëyre nag ne maa ngi melal aay yi nga xam ne dafa leer nañ ba gën a leer safaraayu berne bu jàpp arab yi ku ci amaan alal ba xamoo nooy def te bëgg a lool ngay dem ba ci àll ba gis bu mag nga teg fa di taal safara boo fa taalee safara ku seen tukkikat ku seen safara si rek ma dem ci safara si su ma ko demee dinaa am luñ ma may wala ma am lu ma lekk boobu bu jàpp arab yi noonu lañ daan def su boobaa nag foo xool rek yaa ngi bu séeréer la nee na alquran moo gën a leer safara yooyu nga xam ne ñoom dinañ ko daan taal ci guddi goo xam ne guddi gu lëndëm la ci kaw montagne mu ngi lépp mu ne wurus or ku ko nos def ko benn caq dina taar bi dina rafet dina dolleeku waaye nag du wàññi ci darajaam dara buñ ko nosut alquran wax ci moom terewut karaama ju rëy la moo gisaat ju rëy la ñàkk wax ci alquran yi terewut moo gisaat ju rëy la wurus ni mel rek amul benn jamono joo xam ne maanaam mu ngi ñëw ñuy ëppante tagg ci alquran moo xam jikko ji la wala muy melokaan bu xam maanaam buñ xam ay aay la yoo xam ne yu dëkku jógee koo ci yàlla mi nga xam ne moo sos aay yooyu moom yàlla nag sosuwut waaye xadim la waaye nag yore sifatul mawsuuf bil yi alquran dëgg-dëgg melow ki nga amal la ki nga xam ne moo njàkk dara amalu ko parce que Baye wax na ne alquran jii du alquran yi dëgg dëggal ya ya moom sifa la rek ci meloom yàlla moom la bu séer yu feddali mu ne nag amul benn jamono joo xam ne dina ñëw ñu koy ñu koy ñu ciy tànn di ci wax loolu alquran wax na ci moo xam jamono ju baasi la ak jamono jii ñu nekk ak jamono ji nga xam ne mooy mooy ñëw moo tax soo demee ci Euh, badiyu euh, burdatul manafi' moom aay bi daf ko bokk nee na bokk na ci aay yi nga xam ne sax dañ koy listixaare day wone karama lam taxtari bi zamani ba ya tuxbiruna an il maadi wa an aari wa an irami alquran jamono ju nekk rek moom wax na ci jamono ji passé ak jamono ji ñu nekk ak ji ñëw daamat la day naa mu baax kulla mujisatin min annabiyina is jaat walam tadumi alquran nag dafay sax karaam moo ñu saat du sax la mujjisaatu yonent yëpp pour nga gisaat ci dara lu jafe la waaye alxuraan moom mooy mujjisaat la yonent bi boo xam ne mujjisaat bu sax la te day sax ba faw ba léegi danañ ko day nettali te bàyyiwul dara loo xam ne lu gënt la wala mu loo xam ne lu nuru la lu dul rek bi ñëwee leeral na ko amul lenn lu mu bàyyi amul ñenn ñuy werante ci dara du alxuraan bi mu ñëwee rek leeral na ko comme yow bi jël sëb bi rek daal koy sànni ci digg mbooloo ñëpp daal di koy gis ba léegi alxuraan ñi nga xam ne dañuy jàngale ilmu balaaxa mooy wax ju jub jub te jot ñoom bi ñëwee ci alxuraan daal di nañ cee lottu ñoom ñi nga xam ne dañoo jiiju ci xam-xam wax bi ñëwee lottu nañ ci alxuraan ndax alxuraan max naa yim dajale laa maanin ka mawjil bahri min maanaam maanaa yi nekk ci alquran dafa bëri ba mel ni duusi géej gi mooy vagues yi ni mel waaye rafetaay nag moo gën a rafet sax wurus yi nga xam ne mooy wurusu àddina yi ba léegi amul kenn koo xam ne di nga tëkkalanteeg alquran ci ay kawti fi ci nekk ku ko a lim di nga dem ba mu yàgg sax bu sëriñ ne dem ba da ngay yokkat yokkat mooy nga sonn rek daal di bàyyi ki ngay jàng nag moom alquran day sendal sa xol Baay wax na ne eh, eh, kalaamu rabbi waxi yàlla sama borom yu leer ji moom ci laay sukkandiku ci laay dëgërloo ndax mooy seddal sama xol ku koy jàng maanaam doo dem ba yokkal ci mukk te soo ko jàppee jàpp nga ci buum bi nga xam ne du dagg benn yoon kuy jàng alxuraan bu sëriñ ne kuy jàng alxuraan ngir ragal safara ya Allah dina ko fegal safara si tàng soosu nga xam ne day mel ni yow mi jël sa ndox mu sedd rek daal di ko ciy sotti ba léegi jàng alxuraan dafa mel ni yaa maanaam da ngaa diwoo këri ba ñuul ko mooy bàkkaar yi nee na alxuraan nag mooy géej bi nga xam ne deex bi nga xam ne da ngaa ñëw rek prononcé ci da ngay daal di seen wecc ba léegi dafa mel ni da lay yombalal jàggim siraat nee na ku jub ngay xàtte woo ci lu dul alquran yow sa xàtte du nekk maanaam jaarut yoon bul yéema mukk nag ñi nga xam ne dañoo xañaan xañaan ci mbiru alquran te mooy xañaane yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne ñoom gisuñ kaawtiif ci nekk mu ne dafa mel ni koo xam ne bët yi day métti mu daal di fat maanaam bët yi moom appaloo bi ci nekk rek doy na sët far nag mu fattu yem ci mooy ñi nga xam ne seen amuñ gis-gis bu xóot ci alquran bu séer yi dafa mel ni sax koo xam ne ah, naka lay gisee koo xam ne bët yi dafa dafa dafa wenant bët yi maanaam day métti ci gàttal naka lay gise leeraayu jant bi waaye naka lay gisee cafkay cafkay ñam koo xam ne dafa feebar ci sunu akbar bàyyi indi na ko fa faqat tunkiru aynu dawa samsi mi ramadin nee na borom bët yi métti leeraayu jant moom daf koy wétti waaye ku feebar cafkaay neexaayu lekk ak neexaayu naan daf koy wit xam nga nit dina feebar a feebar ba su boobaa lekk yi nu mu neex neex sax danaan liy neexu loo ko jox mu ne la lii bëgg mu waaye bàyyi ne dina feebar a ba suuf sax dina ko jël di jàpp ne moom neexaayu neexaayu suuf nee na loolu feebar moo koy indi bu séeri nag mu def ko léegi mu ne ko xam ne daal amoo gis-gis ci alxuraan yaa ngi mel ni borom bët yu métti koo xam ne cafkaay alxuraan neexu la yaa ngi mel ne ko feebar ba benn lekk neexatul ci yow benn naan neexatul ci yow yal nañ yàlla nangul yal nañ yegg ci gàmm gi jàmm ñu daal di dem ci jàmm yegg ci jàmm yàlla nangul ñu lépp luñ fa def di zaare ci laata ci barke bàyyi ko ci Cheikh Tidiane barke yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala